asalaamaaleykum euh, waa Sénégal. maaleykum salaam. asalaamaaleykum El Hadj Sanex Samb. maaleykum salaam sama waa ji. salaamaaleykum euh, Django. Django eh, yow Django wax na. waaw wax na tey waaw waaw. day wax moom day wax eh, eh, Django wax na. day wax asalaamaaleykum Ndiaye ki si des nag moom bu ñu ko waneegum. nañu ko téye bàyyi leen ko maa koy présenté bu leen ko waneegum. ah yow yaa koy présenté waaw ñaan naa leen ko xam nga nag temps yi la may ma jaaxal. yow yaay jëli gan yi. waaw mu am say gan. waaw alaaji di traversé. waaw waaw damaa jëlaat sama kër. di di di présenté gan kër yëpp a yëngu léegi nag damaa jëlaat kër gi en <laughs> ah. waaw dina leer. <laughs> du taw nag may fobeere gan gi bu mu feeñagum de. du taw may wax ah, ah, la. wax la waaw y' a peur sinon y' a rien. Euh, Ndiaye. waaw Samb. Mm-hmm. ñu si événement bu rëy di màggalu Touba. waaw di nuyu. Mm-hmm. sëñ Muntaxa xalif général des Mourides. yàlla fi yàgg sa di ko ñaanal mu gudd fan lool. amiin yàlla amiin yàlla suñu njëriñ. amiin yàlla ñaan di nuyu soxna. soxna Baali Muntaxa. suñu xarit. ku baax. di nuyu sëñ Abdou Karim Borom Maqaarimal. axlaa. Ah ak ñaari soxnaam yi yaay puy ak yaay Mbàkke. ndeysaan waaw ah, waaw. di cant nag waa Touba ndax lan Samb. Hmm. Samb gan dafa metti hmm. nga ñëw ñu génn seen néeg. wallaay ndeysaan joxal na la dëkkal. loo bëgg a lekk. loo bëgg a naan yow dangay dem sax da ngay da ngay rus. alaaji maa gis ci internet. waaw waajoo xam ne wax dëgg yàlla dëkkuwaay ga sax taxul mu demee noonu. waaw mais dajala ne moom daal la mu dajala ci ay ganaar. xam naa ne mat na 200 ganaar leen. xam nga lu mu bënd. waaw ku may dimbali ngir yàlla ak waru sóole jëmmi sëñ Bamba. dañ ñëw lekkale ma dañuy takk rajo maa la ko wax. takk di Touba ngay gis ñuy yuuxu di wax ni ñëw leen lekk ngir yàlla. aywaay ñëw leen xew ñëw leen xew. li may wax ci loolu. mooy ñun Sénégal war nañoo sant yàlla. bu baax waaw. parce que tey lieu bu mel ni Touba. waaw. la fa am. Hmm. kilifa ya fa ne. ŋànk hmm. Sénégal téye ko. Hmm. ba bu ñu wootee doo gis ndakaaru kenn. Ah. doo gis Thiès kenn. Ah. doo gis Diourbel kenn. Ah. maanaam région yu war Sénégal yëpp doo fa gis picc ñëpp nga Touba. kon loolu du ay xam nga lu ma leen di wax loo tey ah. jërëjëf Serigne Touba. jërëjëf Serigne baam ba di di beral nag mention spéciale ñett. Samba xaw nga mooy ñan. muy kan bu njëkk bi mooy suñu télé TFM. tey télé bi ak ñoo mën bis. ah toj wane na seen bopp. ak ñoo mën bis waaw gis naa Soxna Faati. ndeysaan Pape Anne. waaw waaw Chérif. ak ñoo mën bis. maanaam daal dañoo. télé bi lañ gàddu yóbbu Touba fii mooy télé bi. Ah. télé askan yi ci des tele yi la waaye bii tele bi. ah bii mooy bii. <laughs> Ah, bii ak bokkul waaw dégg naa la. bii ak yi bokkul keneen. ñeneen ñeneen caméra ya ndeysaan. ñeneen ñaar waaw mooy gendarmerie national waaw waaw police national sécurité tey alaaj ndax ku fi jaar dem Touba. Hmm. <laughs> gis dispositif yi euh, gendarme yi teg. Hmm. waaw moto sax da lay ba génne la autoroute bi. Ah. policiers yi jalonné biir Touba. Hmm. civilu nag ànd ak gaaya hmm, ndax ñuy raas dem ak ñuy gàmm léeg-léeg bokk ñoo duñu bokk duñu bokk waaw ñii am mention spéciale ak police hmm. ak waa gendarmerie hmm. def nga lu rafet alaaji tëj nga fépp de tëj naa ah, lépp waa service d'hygiène ak yëpp service d'hygiène ñu naan ay deng nga Touba dara amul Touba dara dugg dara amul fa ilaa Touba bi timit waaw ki ko initié ba tef ko fa. ak ku yeggale liggéey bi it. waaw parce que gis naa ku dem Touba dem àgg na ma àgg naa ma ne ko mënul nekk. deux heures de temps. une heure quarante. une heure quarante dégg nga kooku daw na nag alaaji kooku daw kon tamit. waaw daw yooyu nag nañ ko xoolaat. waaw war nañoo delloo njukkal yi borom réew mi. Hmm. ndax euh, moom na moo taxawal Ila Touba bi. waaw moo ko inauguré. waaw ñin ñi di àgg di dem. di ñëw ci jàmm di ñëw ci jàmm waaw am na ngërëmul population réew mi sama gan gi ma di tey kan la Ndiaye looy dosé nii Abdoulaye kan mooy Abdoulaye Madi Ndiaye ak a bëri xam-xam. Ndiaye foo ko xamee. ak bari bëri jom. Hmm. ak a fulla ak a fayda ak diiñ. Hmm. lu tax. yow laay déglu. ndax Cees waa te ku ne Cees. ni jom mm. ni fit ni ngor ni Lat Joor Ngoone Latiir Jóob mm. Kulu Joor Jóob mm. faat fatim ñay calaw ma samba yaa seen gis jam kon du faal ak bargee jóg jógo maa njaalo baba jaalo jóob ñaane bañ nag ñaani ñaane yow ñëwal ñaani gan gi maa ndi tey baal doose yi nag nga wax gan gi kan la Abdoulaye Madi gan gi de léegam temps am jeex sax ndax njaay mi <laughs> muy secrétaire général de l'organisation européenne laa wax nag pour l'équipement de l'aviation civile baamtuwaat ko secrétaire général de l'organisation européenne pour l'équipement de l'aviation civile maanaam ci avion lay am nañ gan moom mii daal ci yëfi avion lay liggéey te du n'importe où lay liggéey ci avion am nañ gan maanaam avion bu dee yaram ma ngay liggéey ca bopp ba mooy mooy avion te di doomu réew mi ay boîte noire yaag yooyu ci bopp ba dina waxal loolu boppam di doomu réew mi waaw dem di jiite ay tubaab bitim réew waaw en tant que sénégalais. waaw naa leen avion nii la avion baa ngi nii bopp baa ngi nii technologie avion la nekk. Ah, ni na sax am na luñ ma ci dee. am nañ ci gan ah, waaw ah. dee nañ ma mii ci ay affaire am. Ndiaye dalal ak jàmm Ndiaye waaw Ndiaye sax nga ci ñun. Ndiaye. ndax ñun Sénégal la ñu am. Sénégal la ñu gëm Sénégal la bëgg. Mm-hmm. doomu réew mi sàkku xam-xam. Mm-hmm. Europe pendant plus de trente ans. Mm-hmm. représenté fa drapeau réewum. Sénégal amal nañu la njukkal. dalal ak jàmm ci ngoon. ah maa moom kër gi dégg nga. <laughs> moom moo fenn. kan moom moom kër gi. waaw moom ku moom këram chaque jour mun la maa moom kër gi xanaa moo ma toog sa waay. Ah, bàyyi la ko mu nuyoo. kër gi de boo demee hypothèque nga ko. Ndiaye ko ko jël ak jàmm. Ndiaye ñëwal. Ndiaye hmm. bisimilah. Ndiaye ñaan ah Ndiaye. ñaan Guèye. waaw. jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm. maa ngi leen di sant di leen gërëm. tey jii am naa mbégte. Hmm. parce que bii mooy sama tele bu njëkk. ndeysaan. ci Sénégal mën nañu wax loolu. yaa ngi doog a ñëw télé. ci télé ci Sénégal. ci Sénégal jagleel ñu émission bi. ah ngoon na la nga ca kaw. <laughs> te ñaari fànn lañ koy waxtaanee de. Mm-hmm. maak ñëw après bu nuyoo ba pare. TFM. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nañ ko bu baax. parce que mu ngi nii nekk mi ngi ne li ngeen di wax naan le le miroir. du Sénégal ah loolu rafet na. loolu rafet na pour ñun ñii nga xam ne yàgg nañu bitim réew. tax ngeen Sénégal mel ni mosuñu fee jóge dëgg la mhm. ndeysaan ku nekk bitim réew tamit boo wàccee yaa ngi mel ne yaa ngi Sénégal rek. dëgg la te loolu nag mën nañu mën nañ leen cee mën na delloo. jërëjëf di leen ci gërëm di leen di sant. ndeysaan bitim réew. Mhm. neexul. Mhm. mais xaw ngeen ko yombal. ndeysaan alhamdulilah parce que ku jógee ku jóge senegal dem bitim réew mhm. ñi fi dem ñëpp booy seet dafa am lu leen fa yóbbu dëgg la du dem boo xam ne ci sa sago la mhm. ñi fi jóge ñëpp mhm. ñi jóge fii ñëpp damuñu ndax seen sago dafa am lu ñu doon wuti ji dëgg la dëgg la dafa am lu ñu wuti dañ ko amee am ful la ñibbisi dëgg la ñëpp ay moodu lañu moo tax man diaspora bu ñu naan diaspora d'accorduma ci tur boobu diaspora lu tax ni diaspora mooy ñi nga xam ne dañuy dem te duñu dellu si ak hmm. dégg mooy ñu sanc beneen dëkk toog fa loolooy diaspora loolooy amul diaspora ni ñëpp dañuy ñaan ñibbisi dëgg kon nag espèce su tukki la rek hmm. espèce su gàddaay ndax am lu ñuy yóotu ndeysaan yi nekk ci biti hmm. ak yi nekk ci biir hmm. ñoom ñëpp ci benn même combat la ñu nekk hmm. d'accord ñoom ñëpp dañuy liggéeyal Sénégal Cheikh mën nga xuus mën nañoo introduire introduire introduire damaa bëgg lii kii dinaa neex a waxtaan nga insérer la ma lii lii la nii parce que man lii yéem na ma ci doomu réew mi lii la lii lan la insérer bu baax ah, tey ko foofu nag fi nga téye moo baax tey ko fii gis nga lii jàngo xalamal ngay ree bàyyi ko rek. na ko mi yëpp gis. Hmm. kii damaa bëgg ñu waxtaan ci tuuti. recto verso la de. maanaam non bu ci ginnaaw mook ay njiitu réew yu nekk ci àdduna bi rek ay kilifa yu nekk ci avion bi rek. Hmm. ay ñoom ki kii defe naa ne président Amérique bi yeeg yooyu yooyu la. waaw kilifa gi. lii avion hmm. la. ma gis ne. fii dañu ne yow yaay secretaire général organisation européenne aviation civile conseiller de la. commission européenne. commission européenne Paris Bruxelles. waaw bii directeur général drone Bordeaux. ba tey ci avion. drone waaw. bii directeur business développement militaire Washington DC avion militaire timit directeur programme avion militaire Bordeaux Londres ak Madrid. gouvernement bi li ñu xaar ci moom. chef de programme avion Toulouse. daa bëgg réew mi dinañ ci ñëw eh. après ñaari étape la. yéen ki ngeen ñu indil nii kan la. man kay loolu noonu ba léegi nag kilifa gi. sa question bi neex na ma. kilifa dama bëgg. nga wax ñu tuuti fonction yi nga am ni ci avion. ak liggéey ba ngay liggéey ci avion. lan la ndax waxtaan wi ñaar la. waaw waaw dëgg soxal na askan wi. Mm-hmm. waaw yéem na yëpp doomu aadama yi. ku ko ragal a ngi nii toog. te ku ko xam a ngi nii toog. Mm-hmm. donc ñu waxtaane ci mbirum avion première partie. waaw deuxième ba nag la ca gën a neex ba gën ca neex nee na dawalatul avion defatul daal léegi dafa bëgg jël réew mi. réew man noonu. candidat la. attention réew mi candidat réewum Sénégal. oh réew mi dis candidat la. Ah, loolu kon dinañ ci waxtaan alaaji kii bu dee réew mi Abdoulaye Madi Ndiaye nee na dafa bëgg jël réewum Sénégal nekk président kilifa gi na njëkk ci avion. waaw xam-xam da am na ko moom kii. waaw am na xam-xam dafa ni dama ko mës a bëgg. yow. waaw nga am nga baal ma nag ak kilifa kenn ko am nga nuy xayma ci ñaate at. waaw kañ loolu kañ bu ma neex la sax. waaw. ndaxte avion maa ko bëggee bi ma nekkee Sénégal Thiès. nekk xale. waaw base nekkoon fa. base foofu laa dëkk. base militaire ba waaw. avion yi di riir suba ak ngoon guddeeg bëccëg. waaw nga bëgg avion yow. ma ne sama maam. waaw. sama maam Ayta. ndeysaan. génn na àddina yàgg na. ndeysaan yal na ko yàlla xare àjjana. ma ne ko waaw maam. Hmm. avion yi nu muy demee. sonal ko ci huit huit huit huit. xam nga xale rek. boobu ay cinq ans six ans am. mu son mu ne ma doom sonal nga ma <laughs> avion tubaab yi ñoo koy defar te yàlla may na leen loolu la sama maam wax boobu si lu dugg la lii nag laa ko tontu nga ne ko ma ne ko waaw maam xanaa dangaa defe ne man yàlla mayu ma yow nga xolool ci six loolu laa ko wax hmm. ma ne ko xanaa dangaa defe ne yàlla mayu ma ma ne ko fii ci Thiès dinaa fi defar avion Euh, xam nga boo waxtaan wi àggee tuuti dama naan la jógal dem. <laughs> avion de boo ko fi defee rek génn. ñu defal fi avion bala ngaa dem. <laughs> non déet li ma tontu maam ji moo a yéem man ci xale bu am. 6 ans waaw tey yàlla di def ba mu nekk loolu. ba nekk looloo garaaw. waaw ba ma ko waxee loolu la tàmbali góor góorgóorlu ci avion. ngay dagg ay carton di defal avion. jeex na tàkk di yat di jàng di dem nag bibliothèque. municipal bi nekkoon HLM. ci yoonu HLM bi di jëli ay di jëli ay livre di indi. waaw lépp lu ci avion ma ci commencé gëstu. foofu laa tàmbalee mbirum avion. ca Thiès laa ko tàmbalee laa ko commencé. xam yow mës ngaa defar avion. yéen ci ñëw ci la nekk yéen ci ñëw. avion kañ nag moom mi ngi nii avion bi mu defar gi nii maa maa ko maa ko éco maa ko éco. ca noonu nag. ñuy góorgóorlu di góorgóorlu di góorgóorlu. madame Vanvo. Vanvo mooy. Vanvo mooy ex mooy Lamine Gueye. ok waaw bu ma daan nekk terminal C. Concorde dafa daan jaar xaw ndax yéen a ngi. fàttali ma daan romb ni escalam Paris Rio comme da daan consommé. Mhm. il fallait que mu wàcc Sénégal. dafa rat kérosène. daan yegg ba Rio. Mhm. musu fi musu fi wàcc riiral aéroport bi. day riiral toujours parce que avion boobu supersonique la. waaw kay. foofu nag ma avion bii man lii de dinaa ko mës a defar bés bu soobee yàlla dinaa ci góor góorgóorlu dinaa ko jéem a def bés. mais da nga amoon doon dee di wax wala la. non bëgg la woon rek xam nga nit rek te jëloon naa engagement boobu loo loo gëstu rek ci xam après fan nga ko jàngee fii Sénégal wala bitim réew ah, man bi ma amee sama bac. Mhm. dëgg-dëgg nag ci ñi ngi jàng ci réew mi laa macha allah dëgg la Abdou ma jox sama bourse ne ma demal indi lu fi amul demal indi ñu lu fi amul ba ma demee nag bien sûr ma def samay samay concours ak yooyu yëpp aviation laa tànn dugg école nationale de l' aviation civile bañ nekk Toulouse la il fut rose. ingénieur de l'aviation civile ak pilote d'avion. pilote. waaw waaw. man sama man pilote avion laa njëkk am permis avion laa njëkk a am que permis oto. donc <laughs> naa ñetti année am permis avion doog am permis oto. ñetti ak séparé nañ. yow yan avion nga mën a dawal yan genre Boeing wala cargo wala la. man nag comme li ma la wax avion. waaw dafar bi moo ma ci intéressé. mais dawal bi yow mosoo koo def. mos naa ko def mais du loolu sama métier sama métier mooy tabax avion mooy tëgg avion. loolu mooy sama métier man sama métier mën nañ ne mën ngeen ne Thiès am na avionneur boo nee Boeing. boo nee Airbus. Hmm. yokk ci Ndiaye Aviation Works muy naaw. Ndiaye avion aviation works muy NAW NAW mooy naaw mooy Naawa société boobu la ñuy samp fii ci Thiès incha allah comme ni ma ko waxee sama maam. Thiès pour samp fa société bi lan noonu. avion laa leen wax xam nga nee naa leen sama maam dama ko dig dara dinaa ko def incha allah. léegi léegi soobee yàlla maam ji lay. est ce que xam ngi métti. yaa ngi miir sàmm ji fi sama bopp baa ngi métti parce que xool xool bu rëy gi ma ko xool. ah <laughs> gan mosu fee ñëw ba ma xoolee ko xool bu rëy nii. non de ko xool góor góor parce que tout juste. Euh, ñoo ñun tubaab yi waruñu ñoo yab quoi. dëgg la man c'est parce que une personne comme ça. waaw à l'âge de six ans. waaw mu mu am défi boobu quoi. dem waaye yow américain yi seen seen seen am na boo wax. parce que américain ay mbiram moom. mu ngi ni directeur développement militaire Washington DC. waaw maanaam kooku ci avion militaire yu Amérique yi. loolu loo fay def foofu noonu. loolu avion yi ñu naan avion ravitailleur lañu. waaw ah. xam nga américain yi dañoo am benn bombardier nucléaire boo xam. maa de yi. nee nañu mën nañu taal benn dëkk te kenn du ci mën dara waaw ni avion boobu di ko def kenn du ko gis mu ñëw avion la boo xam boo ko dóoree radar moom day jël radar bi nëbb ko dem doo ko gis yooyu yooyu koy defar non boobu waxuma boobu dugg dugguma ci boobu yegg dégg am na lu ah, ah. yenn yi tamit dëgg-dëgg du ay secret défense la yoo xam duñ ko wax waaw dëgg la mais nag am na avion boo xam ne moom mooy ravitailler avion boobu nga xam kenn du ko gis hmm. parce que jéggi àddina bi ci yenn euh, façon avion yi day soxla ñu koy delloowaat kérosen di ko joxaat muy naan ci air bi avion bii ñëw nag fekk ak moom jox ko mu naan dolliwaat ko kérosène muy comme ci air bi comme boo demee xam nga station service ñu dafa waaw waaw xam naa ko gis ma nga noonu avion boobu station service buy naaw la waaw day dajeek bombardier bi nag jox ko léegi mu mën a continuer technologie ci avion bi nga wax ne moom ngay liggéey lan la liggéey bi laa bëgg a xam man ci avion. man ci boîte noire bala nekk wala ci chaise yi wala ci. non non man avionique bi la li ñu naan avionique nag mooy lan. Mhm. boo jëlee comparé nit ak avion. waaw am nga yaram mais am nga li ñu naan cerveau. waaw bopp bi intelligence. waaw ñun ca loolu la ñuy liggéey muy avionique. d'accord léegi loolu mooy pilote automatique yi. bi ñu bind industrie bi. mooy nga dawal ba ci yàgg seex. ooy ma nga dawal ba ci yàgg. ni xàngang di nelaw avion bi di ko conduire boobu. jeex na tàkk waaw baa ngi nii. automatique bala. moom automatique bi système de navigation. yéen boîte noire yi a koy defar kon. est-ce loolu mooy avionique ci boppam. boîte noire parce que bu avion maara day taal yi daanoo. maara day taal yi. seen yoon nekkul ci avion bi boîte noire bi rek la ñuy jeex. loolu sax li gën a tuuti ci xam-xam bi la. parce que xam-xamu. Eh, avion waaw léegi sax yow léegi émission bi jeexal nga demal. <laughs> léegi avion bi demal demal demal avion bi ñu bind lan industrie lan yaa ko defar bii nga ma wax. bii nag sama bos la. ban. boobu sama bos la. ana fu njóogu yow. Eh, kii dafa ñëw fii bu ñu eh, kii dafa ñëw di ñu nax. bii sama bos. kii dafa ñëw di ñëw. bii sama bos la eh, ma xool yow yaa defar avion bii. bii sama bos la. yaa ko moom. sama bos la. sa invention la quoi. exactement. xam nga nag avion tey jii boo koy defar. waaw. yaa ngi koy defar ci biir li ñu naan ay logiciel ba mu pare. bu paree dañ koy jëli ci logiciel bi tabax ko buñ ko tabaxee résultat ya ñu calculé woon moom lay nekk. dootul prototype. Hmm. est ce ngeen wax ji ma leen léegi tudd. bii mi ngi tudd KS cinq lu muy def. KS 45 dafa di lu am solo ni avion bi ma njëkk a inventé Thiès ba ma nekkee xale noonu la tudd tuddoon. waaw KS 45. lu tax KS 45. KS cinq mooy Kangou Sarr 45 mooy Kangou Sarr mooy sama yaay juddu 45. mais am na lu yéeme na am na lu yéeme. am na lu yéeme am na lu yéeme. waaw. ndaxte avion bii di tudd ravitailleur bii. waaw bu américain yi. mi ngi tudd KC 45. KC yow yaa ko tuddee noonu. ko tànn fekkee Amérique. KS 45 man bi ma nekkee xale 6 ans la doon defar avion KS kan. liggéey naa ca avion. KC 45 u États-Unis yow sa bos nga tuddee ko KS. 45 ba ma ko tuddee yàgg na KS 45. booba xalaatoo koo defa avion. xalaat maa ngi ci woon ci avion fooyukaay yi. d'accord naa léegi. léegi xam nga fu ma bëgg léegi mais nag lii àddina dafa dafa di loo xam ne dafa doy waar. Uh-huh. bi ma toogee man bay liggéey ci avion bu ñu tudd KC 45. Hmm. te di avion américain bi ñuy wax. mën a yi seen bombardier nucléaire dama yàlla rek mooy kari. waa léegi man laaj ma dese rek. sa bos lan lay def day transporter ay nit wala cargo la wala lan. sama bos drone la ci boppam. ah drone drone la mooy que ne dina naaw vingt quatre heures. di espionné amul luy xew ci dëkk bi te du ko xam. amul ci dëkk bi. amul xew ci dëkk bi ko xam. bu ñeenti nit dajaloo sax dina xam ne ñeenti nit israélien bu fi ñëw boobu xam nga mooy li ah. booy tëgg avion da koy tëgg ci ay li ñu naan spécification mooy lan la ñu bëgg mu daf parce que ñun suñu taxawaayu ci avion euh. mooy dañuy xool benn problème ñu résoudre ko ci defarum avion. bon man dama am problème. xam nga tey jii boo nee nit ñaa ngi dem ci géej gi. nit ñaa ngi jël gaal gi. wala boo nee tey Sénégal mënul xam ñan ñooy jël ay jënam parce que guddi la ñuy ñëw mbaal ba mu neex leen dam kenn du leen mën a gis boo nee terroriste yaa ngi traversé frontière bi te kenn mënu leen xam waaw xam nga am nga problème te parce que tey jii mënuñoo déplacé wu gis leen waaw mën nga am benn système boo xam ne ñoom ñi nga yónni moom ñooy nekk ci jaww ji rek te duñ ko dégg lépp la ñuy xam riir ba nag boo bañee mu riir day xaw a kawe da ngay def de telle manière mu kawe ba kenn du xam ne ma nga fa. yow nga toog fa nga toog di gis lépp. nga toog fii nga toog bu ma doon président de la république am lii lu xew ci dëkk bi naa ko xam. jàpp boo nekkee président de la république di nga am man am na lu ma bëgg. loolu dañ ciy ñëw deuxième point mën nañ koo defar deuxième mën nañoo jóg defar. lu mel koy am lu ma koy mottali rek. Ah. yëg nga ni émission bi bu jeexee suba président Macky Sall na la woo. ah non non loolu beneen wax la. loolu beneen la dinañ ci ñëw deuxième point la. loolu beneen wax la non parce que xam nga seen lu tax ma wax ko. waaw nit ñu mel nii. waaw waruñu leen a bàyyi de. waruñu leen a bàyyi ci réew mi ñuy ñuy dox nii di dem ah. loolu moom dootuñu ko nangu moom. bii ngay def ci réew yow dañ laa war a tëj ci benn néeg di la surveiller. parce que ay directeur européen laa fi gis. tubaab bu suñu ñëw jiw alors que Air Sénégal teg la aay loolu laa bëggoon ñu ñëw Air Sénégal. la teg la aay di wax Sénégal ah ça ça yow say mouvement moom ah, ça ça waaw Air Sénégal laa bëgg ñu wax. waaw parce que boobu ba léegi ay directeur européen la directeur waa Washington DC Bruxelles Londres Madrid euh, truc machin alors que Air Sénégal. waaw toogoon na lu yàgg amul. waaw maanaam mu tëjoon xaw ma fayit la ñu def xaw ma lan léegi Air Sénégal ñëwaat. ñëwaat na nan nga ko gisee ak avion Air Sénégal bi. est-ce que avion bi ah euh, mi am na lépp lu avion war a am. pour dem ay France ak. waaw kay waaw. Air Sénégal. Uh-huh. mën na la wax ay ATR la ñu jënd. Mm-hmm. avion yooyu ay avion ATR mooy avion de transport régional. régional régional ña jënd nañ ci ñaar jënd nañ ñu ngi waaj a jënd tamit ay Airbus A330 ba tey région lay daw. non Airbus A330 moom mën na jéggi presque genn wàll. maanaam les pays limitrophes. mën na jéggi mën na jéggi mën na jéggi genn wàll pratiquement dama koy simplifier rek. waaw A330 ñun ça fait bañ ca liggéeyee. ça au moins quinze ans ñu liggéey ci. Mhm. parce que nee leen am nañu trente deux ans. ci biir complexe militaro-industriel occidental amul avion Airbus bu ñu liggéeyul bu ñu liggéeyul ca cockpit ba donc A330 mun nañu ne sunu avion la ñun ñii toog fii mën nañu ne avion boobu ñun dañ koo xam ni ñun ñoo ko tabax Sénégal nag mi ngi jënd avion boobu comme ñeneen niñ koy jënde comme Air France comme ñeneen ak ñeneen mais avion boobu ñun niñ ko mokkale ñun ñoo ko tabax ñun ñoo ko tabax d'accord yàgg na nag. waaw léegi yàgg na. d'accord léegi ci avion ba tey tuuti rek après bu ñu dugg ci bi nag. dëgg la dëgg la parce que avion. Uh-huh. Euh, dama seetlu man. Uh-huh. am na Air France. dëgg la am na. Euh, Air maanaam bu Belgique. dëgg la ah boo demee Iberia mooy bu waa Espagne. dëgg la nest pas. Afrique amoon na ay jamono Air Afrique. Mm-hmm. macha allah maintenant amatu fi. dëgg léegi Air Air Ivoire ngay dégg Air Burkina wala Air Sénégal wala. Askaay voilà mais lan mooy problème bi lan moo tax réewu africain yi. mënuñoo booloo. Mm-hmm. ah réew africain yi mënuñoo booloo. macha allah ñu andiwaat Air Afrique mu doon benn avion lan la. yaa a problème wala amul problème. lii ngay wax lu am solo la. Mm-hmm. ngay wax lu am solo la. dëgg dëgg man bu ma bu ma doon laaj man. du ma tabax Air Sénégal man damay jubal direct ci Air Afrique. Hmm. parce que Air Afrique amoon na fi temps moo doon sixième compagnie mondiale. Hmm. amoon na doole. amoon na doole trop. hôtesse yi daan def loo xam ne kenn daanu ko def ci àddina bi. Hmm. boo décollé Charles de Gaulle. ñu sol ay tailleur. bala ngay jub jub Sénégal ñu changé sol ay taille basse. waaw waaw. waaye dafa amoon benn affaire. am solo loo xam ne. mu doo ko gisatoo ko fenn fii sax pratiquement. Air Afrique amoon na fi doole joo xam ne nekk na fi sixième compagnie mondiale. dam ba jaaxal Air France ca boppam. parce que Air France nag ñoom ñoo sàncoon Air Afrique nañ waxante dëgg rek. dëgg la ñoo dajale Air Afrique. ñoo leen ñoo leen ñoo ko sànc ñoo ko tas. ñoo ko tas ah, ñoo ko sanc ñoo ko tas nañ waxante dëgg ñoo ko tas mais ñun nag ñoo war a am fulla ak fayda tey jii kenn terewuñu ñu dajaloo daf benn compagnie boo xam ne day am dimension continentale mën na nekk compagnie boo xam ne mu ëpp doole ci monde bi lay wax mën na koo nekk ni tey jii booy jéggi jóge Asie war a dem États-Unis mhm. Europe ngay jaare la voilà loolu nag mënoon nañ koo régler ñun africain yi. Hmm. bu ñu amoon jom full fayda. mën nañoo def compagnie boo xam ne de dimension mondiale lay doon. mais nag xam ngeen aviation man neex na ma torop. Hmm. mais du priorité Sénégal nañ waxante dëgg rek. lan mooy priorité. priorité Sénégal tey jii mi ngi ci éducation. Hmm. ñu ngi ci santé fi mu toll nii dugg nañu fële. waaw mais mën nañu duggaguñ fa boo leen boo leen bëggee mais avion moom mën nañ cee wax ba suba. waaw leer na xam nga avion lu ñu wax. ah on nga avion du priorité kay. bu ñu mais nañ xam sa ñàng rek. léegi ñoo xam nañ sa ñàng. mais nangul nañ la nag kon sa njëlum réew mi. avion ku ko mën a defar waaw boo yooyu moom dañ la sa waay Euh, wax dëgg yàlla sunu réew mi moom réew mee la ëpp xam-xam. dëgg la mais xam-xam bii nga yor moom. avion lépp a ngi ci biir. lépp a ngi ci biir. Ah. mooy système bi gën a am sécurité. ci monde bi ci monde bi. Ah, laaj ko laajal de. c'est du ma toog ci avion maa ko ragal. <laughs> dama lay dama lay rassurer gis nga avion. Hmm. Ah. day tëmb day tëmb ci bi day tëmb. day loolu ma la wax avion day tëmb. Ah. day tëmb ci air bi kon nag war na laa rassurer. li nga wax neex na tëmb dégg nga ko. gis nga bu ñu doon bu ñu doon bu ñu lan lay décollage. waaw. mën nga ne dañuy ñëw daf le la pleine puissance. Hmm, mooy dawal ne la plein gaz. Hmm. nga dóor moteur yi nag. xam nga avion bi wan la dooleem réacteurs yi jóg waaw. waaw pousse accéléré. sama noppi fan. dam ba benn vitesse. waaw. ñu ne la vitesse 1. Hmm. mooy léegi dellu ginnaaw amatul. waaw jóg rek jóg rek. foofu la danger bi bu ñu nee V1 rek mooy dam rek. arrêté amatu parce que boo arrêté da ngay saaraani ci piste bi. maar day yem si. bu ñu nee V1. waaw. mais ñaata lay daw ñaata kilomètre heure buy daw. deux cent cinquante trois cent. la kilomètre heure waaw léegi bu nee V1. bu nee V1 kon nag léegi taxaw amatul dam rek. waaw. parce que mën nga balaa un problème am roue nga ne arrêt décollage. Mm. ñu ne taxaw des ci piste mais ba su ñëwee v mooy dam rek. dem même bu roue tojoon bu roue tojoon dam rek. te ah. avion bi noonu lañ ko calculer <laughs> ah. avion amul panne bu ko mën a daaneel. amul panne boo xam ne benn paan noonu nag lañ ko tabaxee ci xam-xam. panne du daaneel avion. Ah. mooy benn panne rek du tëwuma man benn panne du sama problème loo panne nag loo ma paanal damay dem. xanaa nga dóol ma ñaar ñetti panne may doog a am problème mais benn panne moom munu amal benn problème avion. ak panne bu mu mënta nekk. mais avion yi daaru lu bëri est-ce que du euh, agent de sol yi parce que avion nag ña ca kaw presque dawaluñu. ah ci suuf a ëpp li ñuy def. tour de contrôle. tour de ñi lay wax. ñi naan comme ñi règle circulation bi bu nekk sa kaw. xam nga li nga xam mu nekk xam waaw ngay di def calcul yooyu nga xam ne. ci benn seconde dinañ def mille calcul. Mhm. équipement yooyu may wax lii ci bopp bi di xarañ di calculer. ci yàlla ñooñu ñooy téye avion bi. Mhm. te ñooñu loolu ay logiciel la yoo xam ne moom laa ne wax avion lépp a ngi ci. léegi nangu nañu ne. lépp a ngi ci ay logiciel yoo xam ne. kilifa gi njaay. <laughs> lii nii boo xoolee dañ doon gas xool. peese la. xool ki nga xam ne nee rek xam sa bopp parce que tey jii. Mhm. buñ ne Abdoulaye Wade. da nga naan Abdoulaye Wade maître Abdoulaye Wade. nga ne l'économiste clairvoyant de réputation mondiale. kay nga ne Abdoulaye Wade la bâtisseur de la démocratie. défenseur des droits de l'homme défenseur des droits de l'homme économiste clairvoyant de réputation mondiale. tey nga ne le président Macky Sall. nga ne ingénieur. bu nga xam ni dafa sës moom it yegg. ingénieur chimique. waaw bu nga xam ni kooku dafa sës dafa yegg. xam-xam boobu it ku ko yor. ku ne yàlla ne la ngay def la lay def. nga Macky Sall ñëw rek gaz bi ñëw ak pétrole. gaz ak ñëw pétrole fekk si ko. kii bu fi ñëwee noonu la ñuy bëree ak yow. kooku kon kooku kii bu fi ñëwee. Sénégal moom yéeg fi avion. n'est-ce pas dëgg la kon kooku nangu nañu ne tamit xam-xamam. xam-xamam màcc na ci. mu war a mën a énergie waaw yow mi nekk ci avion sa xam-xam màcc na ci waaye nag kilifa gi. waaw kii woote kan la. waaw man kii biiru jàmbur yi di ñu woo rek di ñu ah. tàllal ay kii. du taw may fobee rek kan may woo ñu. dañuy woo émission ah. est-ce que du Kébé. ah, ah Kébé woote n'est-ce pas kilifa gi. waaw dëgg la nga ne léegi yow. ñëwuloo. Hmm. créer sax benn genre kii bu ndaw. waaw. ne da ngay jàppale diw wala da ngay jàppale diw loolu yëpp defoo ko. waaw da ngaa ñëw créer sa mu tudd. les trois A. les trois A. maanaam mooy avenir avenir africain associé. mooy lan avenir avenir africain associé mooy les trois A. mooy boole boole avenir u Afrique ñu nekk benn. waaw associé d'accord nañu. léegi nga ne yow. sa mouvement boobu. demuloo yóbbu ko PDS. mouvement bi yóbbuloo ko réew mi. yóbbuwoo ko APR. yóbboo ko PS xaw ma PS dafa naa amatul sax. mais yow daal nee nga yow sa parti bopp nga yor da ngaa bëgg a yor réew mi maanaam président nga bëgg. absolument loolu loolu laa bëgg. mën nga ñoo xuusal ci loolu benn deux minutes. waaw parce que nit day am fulla ak fayda. waaw ba pare loolu. lu citoyen yëpp mën a def la. waaw ñun am nañu benn vision boo xam ne yàgg nañu koy dox. Hmm. bi ñuy jóge Sénégal amoon nañu vision ba pare. parce que dama xool ne ñun li ñu manqué Afrique li ñu manqué te moom loolu mooy mooy wane lan mooy sunu sunu parti bi waaw parce que da di xobu garab boo xam ne baab la ak téere seen seen kii seen logo sunu logo logo bi baobab la baobab xobu baab ci suuf ak téere ci kaw téere lan euh, livre wala téere. livre ah, livre ok euh, ak xobu baobab. ak livre baobab mooy symboliser Afrique. d' accord. Hmm. baobab mooy ressource. ressource. Hmm. mooy ressource. Hmm. cinq nag xob baaw baobab nag cinq lob la. muy cinq ressources. waaw yi nekk fii ci Sénégal yi nekk fii ci Afrique. ressource boobu gën a mag nag muy nit ñi nit ñi nit. mooy ressource bi gën a mag ci ressource yi. te fii ak deux mille cent de fii ak mille cent. 2100. benn terrien benn benn benn mais nag président déedéet wante gis nga booy tabax. noonu ngay xal noonu ngay xoolee sur 500 ans ngay xool. Oh, eh, loolu mooy homme d'État loolu mooy homme mais déglu ma rek fii ak 2100. Mm. benn benn ñetti ñetti doomu yàlla yoo gis benn bi africain lay doon sa doom. Mm. mooy ëpp ci àddina bi. loolu di loo xam ne dafa nar a lépp ci fii Afrique dafa nar nekk loo xam ne dafa nara jóg taxaw yore monde bi noonu ngeen ko war a gisee ñun nag loolu dañu war a préparer muy li nga xam ne mooy homme d'état homme d'état du xool tey rek day xool suba dëgg la ñun suñu vision bii ñu am Afrique dara kenn ëpp ko am am waaw mais li mu manqué mooy xam-xam ak fulla la ko téye mm-hmm. xam-xam mais mas nga politique. mosuñu politique. moo tax ñun lii ñuy def du politique. Ah. moo tax tudd ñu ko parti sax tudd ñu ko parti dañ ne avenir africain associé ñun liggéeykat lañu ñun liggéeykat lañu ñun homme d'état lañu noonu lañ ñu tabaxee ñun ñuy jëmalee àddina kanam hmm. ñun loolooy suñu mission ñun liggéeykat lañu très bien xam nga kii ñëw di sonal boppam di defar avion boo xam ne musu fee am. Hmm. kooku dafa am lu mu bëgg indi ci àddina yokk ko ci. dëgg la muy que ne tey jii booy dem màkk ku dugg màkk. ku hmm. dem màkk dugg nga ci sama avion. Hmm. boo jëlee Airbus. dugg nga ci sama xam-xam. boo nañ sa avion ba waaw. mi ngi noonu donk lu ñuy yokk la. loolu nag ñëpp ko mën a taxaw daf mais yow fi mu toll nii da ngaa bàyyi liggéey bi ngay liggéey partout dans le monde. yàgg na kañ nga ko bàyyi. 2015. 2015 liggéeyatoo dara lu jëm ci avion. di préparé fu mu nekk dama ne pare naa ci lii ñu ne ma waa Ndiaye luñ la def lu la neexul. waaw luñ la def lu la neexul. Ndiaye foo jëm. nga ne yow doyal nga xaalis. ma ne leen seen yoon nekku ci. doyal salaire yaak yëpp. waaye gis nga loolu daf ma ko jaral ni damaa war a delloo njukkal sama dëkk. 2015 ak léegi lan yan move yan activité nga fi def nga fiy def. am naa sama alalu bopp. waaw. loolu doy na ma. maa ngi defar avion. comme ni ma leen ko waxee. bu ma doon liggéeyal keneen du ma ko mën a defar. mais jël njërum réew mi. jël réew mi nga ne mën nga bëgg nga jël réew mi. Ah, naka toog yaa ngi defar sa business bopp di ci liggéey. léegi mouvement bi kañ la créé wu mouvement bi. avion bi ko yàgg na. mouvement bi ñu ngi ciy dox depuis 2012. mais parti la wala mouvement. parce que xam nga lu parti bu wóor la xam nga lu may dugg ci loolu. bul dugg ci avion de. déedéet. waaw waaw non avion kay wàcc naa moom dootuma ci yéeg. atterrir nañu waaw. waaw génn naa sax. destination arrivé bi génn. ñëpp wàcc waaw mm-hmm. moom mi dafa am benn doomu ndeyam boo xam ni. Mm-hmm. xam ngeen ko sunu xarit la mooy Madiop Sine. ah Madiop Sine waaw Madiop Sine. Mm-hmm. Kor Awa. waaw Madiop Sine. mais ñuy seetaan waaw nee na ma ki nga invité. ma doomu ndey la. mais maag moom bokkuñu vision politique. waaw. waaye sama seen gan la parce que suma suma gan la. dëgg la waaw. parce que moom ba mu ñëwee am na lu ma ma wax. Mm-hmm. parce que ñoom xam nga ku nekk da ngay xëcc sa côté mooy ñëwal jàppale président ma Sall. waaw gën a am vision. Mm-hmm. ci politique. waaw législation yaa ngi ñëw ba ci kanam ngay demal ba ci kanam ba nga ba nga roode ba daw ba ñàkk ba roode waaw mbapat ba mu leen affaire bi mbapat mbapat très bien ba mu leen affaire bi mbapatoo soog a beru mbapatoo moom mu ni moom grand combat rek moom taxawul ci gannaaw kenn grand combat waaw léegi roi des arènes waaw moom léegi direct ah direct ku am fi tegi nii toog direct ah, direct séeréer am naa ci am naa ci waaw yow waaw léegi may wax ni yow sooxe ban mu dis Idrissa Seck Thiès. waaw ponkal yaa nga fa limal Idrissa Seck. gis gis euh, Thierno Alassane Sall. waaw ñoom docteur Ndiaye. docteur Ndiaye. ñoom Moussa Tine. Siré Dia waaw ñoom Siré Dia. ñoom Siré Dia. ñoom Abdou Mbow. waaw ah. ñoom ñoom ñoom ñoom Augustin ah, Tine. ah ah, ah. DC. Ah, DC Demba Diouf Demba Diouf. ponkal yaa nga Thiès de. Demba Diouf am na am na keneen am na benn boy bi gën temps yi. kan waaye bo Dieye lan Dieye. Abdoulaye Dieye. Abdoulaye Dieye moom la moom la. waaw moom moom ci moom moomu la la ma jóg si nekk. ci Abdoulaye Dieye waaw. waaw mais dama xam ni foofu saturé na mooy kan. cee saturé na te ay ponk la fa ne. saturé wul yow nga bëgg ñëw saturé wul. puus ñooñu waaw nu mu demee noonu. da nga leen a ñeme. saturé wul. waaw xam ngeen damay joxe benn exemple gis ngeen yéen. boobu ñuy déglu ñu télé di gis ngeen dëkk bi dafa amoon li ñu naan dafa yàggoon a am ay ay théâtre yàgg. na fi am. waaw yéen da ngeen a ñëw innové ko yéen wiiri wiiri waaw ngeen ñëw indi fi loo xam ne amu fi kii daa mel daa jàng communication kenn mënu ko ko ñëw indi fi loo xam ne amu waaw léegi yow ngeen ne indi liñ naan innovation kon réew mi ku politique mën na ko jël ku ci boppam la nit ñi weddi ah cëm ci boppam la nit ñi weddi wax ju bëri jee fi doy dëgg la politique ci boppam wax ju bëri tey jëf dama lay jox benn exemple. kii nag moo fi nar a jékki-jékki rek. nekk <laughs> nga am na 6 ans ni leen damay defar avion defar ko. jàngo xam toog na fii ni leen damay nekk président. te moom wax na ko ci biti nee na ah. dama lay jox benn exemple kii innovation. mooy tax nga gagné. dëgg la li ngeen teg. waaw da ngeen a innové. da ngeen fi fekk ay théâtre yoo xam toujours la même lay jëlee kii ñun moom garaaw. ngeen ñëw indi fi lu tàq. waaw. kenn kenn kenn kiiwu leen sant yàlla yéen am na ñu leen fi njëkk ñoo xam dañ fee samp woon ba ñu dafa ne duñ fi yëngu ñun nag nous sommes le candidat de l'innovation nan nga nar a innové ci ci dama lay jox benn exemple nañ commencé Thiès Kajoor ñëwal Thiès damay jox benn exemple bu simple rek ñëwal fii da lañ nar a sabal Cees woowu gis ngeen damay joxe benn fa laa juddoo damay commencé foofu <laughs> lu yomb laay wax lu yomb dama leen wax lu yomb rek Cees gis ngeen Cees da ngay jéggi raay bi waaw jaar passage à niveau passage à niveau boobu man bi ma amee aw ma aw ma dix ans de. boobu dix ans yi bu mag bi laay wax passage à niveau bu bi nga xam mooy central. waaw waaw il faut nga jéggi ko. parce que raay bi fa lay jaare voilà waaw. gis ngeen foofu. Hmm. man dama faa yàgg jaar bi ma nekkee xale parce que Daniel Brottier laa doon laa doon jànge dëkk Aiglon. di ko jéggi ñeenti yoon par bés. ñeenti yoon par bés. da ragal du jéggi raay. yaa ngi may dégg. waaw mu mel ni tuq sa bund foofu vraiment compliqué. dama ko ñëw dama ko ñëw. Mhm. ma ne leen mais man comprendre ma lu tax mais bi may wax lii dix ans matul matul dix ans parce que bi ma amee dix ans laa jóge laa jóge fii dam Vanvo. waaw dam dam jàngi ca lycée ba. waaw aw ma dix ans bi ma ne mais lu tax passage à niveau bi duñ ko yaatal. duñ ko lu tax duñ ko yaatal. na ko tubaab ba sampe woon écartement boobu lañu garde ba tey ji. boobu population bi dafa ndawoon. ba tey jii noonu kenn wëlbat kenn changé wu ko. te dëkk bi changé nañ ko. daf nañ fa lu kenn xamul. contournement sax def nañ ko. Mhm. te kenn yaatalul lool. waaye loo xam ci Idrissa Seck. ak nu ñuy yaatale foofu. foofu yomboon naa yaatal. Ah. lu tax yaataluñ ko. loolu mooy innovation. borom Thiès. gis nga man cees googu ma leen di wax. Ah. raay boobu. Hmm. man raay aérien lay doon bu ma fi ñëwee. ah Thiès ak ca kaw. raay aérien mooy lan. waa ji lépp maa ngi xaaral Cheikh bul dem. raay aérien mooy lan. raay bi ci kaw tali bi ci suuf. waaw très bien mais maintenant man foofu développement la je suis d' accord. gis nga loolu. je suis d' ci côté boobu. mais am na côté boo xam ne je ne suis pas d' accord. léegi nag ñu commencé xulloo ma ak yow. waaw raay bi ci kaw. problème bi mooy. tali bi mënuñoo xiif. waaw feebar du ñu faju. waaw lëndam mënuñoo leerlu. jakataa ah jakataa bi ñu bëgg a rey. nga yokk raay. nga yokk passage ani woo. usine yëpp tëj. dootul passage à niveau passage à niveau amatul. waaw déedéet balaa nga wax waxu passage à niveau je voudrais bien nga ni ma nga wax ma emploi mais ñi ngi ñëw. waaw ña ngay ñëw. Ah, mais ah, affaire passage à niveau nga ma dëkk dama lay wax innovation. parce que raay boobu boo nee ca kaw lay jaar. waaw boo nee ca kaw lay jaar. allo moom usine yu bëri xañ na dëkk bi déjà dëkk baa ngi respirer bi amatul barrière. waaw marché bi mën nañ koo yaatal. waaw parce que marché bi bam nam fa nekkee woon. écart la fa amoon moo fa am ba léegi. boo leen bëggee yëkkati da nga ci daj ah. loo xam ne. Mm. nu mu tëdd da ngay yaatal da nga leen di jox place. mais mm. comme dafa sës rëkk. Mm. ci gaar bi mënu la yaatu. mais bu fekkoon gaar bi ci kaw la nekk. am nañu espace. ah da nga yow tooj gaar mu ne ca kaw. waaw bëgg na tooj de. gis nga déglu mais loolu. innovation la te gis nga raay boobu. non loolu moom ñemewul tooj boobu. waaw day dem ba Tambacounda. te bu jógee Tambacounda day dem ba Ziguinchor. Ah. mais est-ce que xam nga li ngay wax nii se beaucoup beaucoup beaucoup de milliards Sénégal am na loolu dina am loolu. Sénégal am na loolu. Sénégal alalam kenn xamul nu mu toll. ana tey jii boo nee prix ñëpp yegg si. ana alal bi Sénégal rek la. waa kii waaw ok yow moom. Sénégal alal rek la. gis ngeen Dubaï. Dubaï benn ressource la am muy pétrole. waaw ñun ñaata la ñu am. ñun pétrole benn ci sunu. ressource tax ñu ñu ñun dañuy benn ci sunu ressource yi la benn. ci sunu ressource waaw léegi ñu ne kii léegi léegi gis nga candidat de l'innovation. nga ni ko candidat nga ni ko ñëwal ñëwal bàyyi mu àggale. candidat de l'innovation. yow yaay kan waaw. c'est super bien. mais yow yow daal ñeme nga affronter gars yi daal. waaw kay mais gis nga xam nga affronter booy affronter nit sax. da ngeen di bokk li ngeen di def. ma laaj la benn laaj man bokkuñu li ñuy li ñuy proposer. yaa leen ëpp xam-xam. yaay jugé man de damay defar avion yaa xam <laughs> yaa xam avion ko defal moo ëpp xam-xam ci àdduna bi. yaa xam de man gis nga avion bi ngay defar. waaw avion ak àddina bi yëpp nga koy liggéey. waaw. gis nga avion bi boo mënul a manager. waaw boo mënul a diriger ay nit parce que avion bi ñuy wax quatre-vingt mille personnes. Macky Sall mi génne gaz bi ak pétrole bi nag ah, ah, gaz ak pétrole ñëpp a koy utiliser. gaz ak pétrole da koy génne rek mais tey ji waaw tey jii ci gaz ak pétrole. innovation bii ma lay wax. Hmm. technologie bii ma lay wax. bu neex tax na. total ne soixante quinze pour cent. Hmm. mana sama àq la. Ah. technologie. waaw loolu après dina am. sama àq kon daal yow danga jàpp ni ñii ci langue politique gi. yow politico doo seen maas yaa leen ëpp xam-xam. ma loolu yow yaa koy jugé. waaw léegi man lu ma la bëgg a laaj yaa ciy li ma a laaj yaa koy jugé. xam nga nit du bàkku. waaw ah, bëggoon naa man ma nit du baax ah, ah, wax nañ ma léegi ne. nit ñaa ngi woote di laajte numéro am ndax li muy wax intéressant wax nañ ma ko léegi. waaw borom li ma fi indi tey jii xam naa ne. waaw ñu bari xamuñu ma. waaw dëgg fii jii fii nii. damay wax ak li ñu naan askan bi moom boppam. waxal parce que loolu hmm. askan bi moom boppam mooy le peuple souverain waaw yéen seen public la waaw hmm. ñooñu peut-être xamuñu ma ñoom lay waxal tey jii loolu ma fi indi parce que am ngeen audience hmm. nit ñi xam nañ leen voilà léegi nag ci ma fi indi loolu dëgg nga ñëw Thiès waaw kay li nga bëgg a wax ak peuple bi après booy tëj nga wax waaw kay parce que lu important la doon def nii waaw mais dafa am foo xam ne il faut mu dugg fa waaw parce que tamit askan wi la wax askan wi ñu ñor mm. dégg nga mm. ñëw nga Thiès fekk fa ñi nga xam ne ña nga fa toog ne dañuy defar Thiès ay gaynde yuy nelaw waaw ne dañuy defar Thiès yow ba nga ñëwee ak sa xam-xam ñëw ak sa alal ñëw ak sa doole lan moo tax ñëwloo ne Idi maa ngi nii dama laa apporter wala Abdou Mbow maa ngi nii da ngeen wóoluwul wala seen liggéey doy wala dañoo xamul dara samay loxo dafa set wecc Ah. lu ci tilim liggéey la. lu ci tilim daal huile la. loolu tontu ak kérosène lu ci tilim liggéey tëj nga wax. wuy ma loolu tontu bu leer la déggoo li wax sax loolu tontu la jeex na say loxo set na. jeex na yow daal doo liggéeyal damay man damay proposé. léegi man ma xuloo xulóowuma. xeexuma ngeen dee am ngeen gan. waaw Sénégal am ngeen gan de am ngeen gan de Sénégal. ci boppa moo ma sant lii. man mission laa demoon dañ ne ma indil lu fi amul. maa ngi ni au rapport. waaw léegi voilà léegi. léegi rapport boobu nag lu tax ma war ko. waaw léegi yow bu la président Macky Sall woowoon ni la xam-xam bi nga am ñëwul bay ñëwal gunge ma. ñëwal gunge ma ci sa xam-xam. dama am vision boo xam ne bokkul. ak moom vision bokkuñu vision. waaw léegi d'accord dañoo bokkul vision. te vision nag. ku ci nekk am nga droit am sa vision teg ko. ma laaj la benn laaj. Mhm. kan moo la financé. 2019 Sénégal dina dawal avion 30 defar avion daal jarul nga dama ni ak nekk président de la république c'est des milliards hein waaw oto yi euh, essence bi ñi lay topp meeting yi euh, ak yu bëri daal yu bëri dafa laaj campagne présidentielle de laaj xaalis mën naa ne man je suis un bon gestionnaire. waaw kan moo la financé xaalis je suis un bi ngay defee man kenn financé yaa xuus kenn jàllewul la. kenn yow yaa joxe sa caution yow yaay financé sa bopp. financé waaye loolu balaa ma caa àgg parrainage bi laa bëgg mu wax parrainage bi ay am na signature nit ñaa ngi ciy commencé dugal seen loxo. ñi ngi lay commencé dimbali. nit ñaa ngi ciy commencé dugal seen loxo mais askan wi. Mhm. ak ñi nga xam ne. ak tubaab yi déedéet tubaab tubaab liggéeyu mag tubaab. gis nga man tubaab dama koy jiite wax naa leen ko. <laughs> waaw kàlla jiite Ndiaye ñu ko Ndiaye tubaab daal bu mu ñu jiite. fàtte tubaab daal moom bu mu ñu fi wiiw. président bu ñu fàtte. nii la def bu ñuy falu duñ la recevoir. déedéet motaari naan la dégage. tey la gëj a motaari naan la dégage. naan la dégage di la door noonu bu ma meloon noonu. waaw bu ma meloon noonu du ma doxee Dakar ba Bargny loolu man bëggoon naa cee ñëw. dox centre yi dox Dakar. waaw loo bëggoon ko dox yow. lan lan la noonu. daf nañ ko dox nañ ko. loo ko jublu woon. mais dajek askan. sama askan mais xam nga doo nekk président de la république di doxee dakaar ba bari. non nii nii nii président la république ko nekkoon. waaw incha doo doxee Dakar ba bari. damay doxee Dakar ba Thiès. Thomas da loolu duñ la ko nangul. ah buñ ma ko nangul ñu xool. par sécurité sax duñu nangu loolu. mais tey jii. waaw mën naa koo def. bu ma liggéeyee correctement. waaw sécurité du ma ko soxla. ah dëgg la waaw président de la république bu ko neexee sama askan moo may dar nii protéger. parce que réew mi kontaan na ci moom 2019. waaw yow di yow diggante ñaari mandat nga defe ni mën nga fee mën nga fee liggéey li nga bëgg a liggéey. <laughs> te yàlla man de li nga ma bëgg ngeen laajal ma ko. ñaari mandat waaw. mën naa ko liggéey li ma bëgg liggéey. parce que ñaari mandat moom doo ko passé. boo defee mandat gagné waat da ngay defaat mandat abale man maa maa ngi ne amin nañu ne amin sax. waaw léegi bi am de signature yu ñuy laaj dara. waaw ah, laaj la rek laaj fi nañuy laaj na koo xamante ne yéen a fawandoo ba ngeen nekk xale jigéen la nag. muy kan Rabi. macha allah Rabi si. macha allah seedal la sa xam-xam. macha allah nee na ndaanaa na ngi nii toog. man nag xam nga lan laa koy seedal. Rabi si. nee na Maadi lañ ko tudde Maadi Ndiaye. Maadi. Maadi ya kooku kuma bëgg la. ah xam nga laa koy seedeel. woote te kooku ñun ñaar ñoo doon ànd di jàngi Daniel Brochet. ku yaru nga nag. kon nag loolu moom dama koy rafetlu. parce que mooy que ne man musuma changé. niñ ma xamee woon. waaw ku yaru nga nag bi. moom la nekk ba léegi. moom lu mu bëggul wuyu du ci wuyu de yaa ngi koy wax parrainage bi pareegul moom moom wax tant pareegul lu ma bàyyi bu ma bu ma génnee fii sama parrainage mat. yéen ñii boo leen seen liggéey bii. Ah. dina matale sama parrainage. ah eh. kon nag léegi nii moo tax moom boo bëggee xeeñ ngi noonu parce que xam nga tàkk nga jéppet. parce que fii moom ku fi ñëw ah, nga daal ci kontaan naa trop. waaw yéen da ngeen ne yéen oh. dañoo bokk innovation. temps ngay jeex mais bilan eh, non il la république nan la ko gisee. ci réew mi il faut mu wax ñu ko. ak moom bilan am ak moom bilan na ko. Ah, waaw mën na ko def mu tàggoo man man du ma nit kuy kuy critiquer. man du ma nit kuy critiquer. doo xase. damay xool li positif ma. reconnaître doo yooyu. daal man yaruñu ma ci. Ah. gis nga liggéeykat. Hmm. du critiquer. dëgg la. ndeysaan liggéeykat. Hmm. du critiquer. ko xam fa nga jëm. kuy liggéey. doo critiquer. waaw léegi parce que liggéey dafa ànd ak juum dafa ànd ak problème dafa ànd ak rëq-rëq. Mm-hmm. bu fekkee liggéeykat nga dëkk. boo fi nekkee di xasaate ak saaga rek da ngay waaw da ngay. amoon na ñu fi nekkoon doon xasaate ak saaga mën nañ leen critiquer lañ lañ doon critiquer ñoom. am na fi amaat fi amaat fi. waaw moom du benn preuve ci dara. dëgg la man duma critique. Mm-hmm. man damay li may teg programme waaw te mooy li may proposé waaw mm-hmm. mooy basé sama programme mm-hmm. ci éducation éducation éducation yar mooy indi njariñ yar mooy indi njariñ yar mooy indi njariñ yar boobu nag ak éducation boobu mooy indi li ñu naan xam-xam bi ñu soxla pour suñu développement dëgg la amul benn dëkk bu développé te développé wul technologie développé wul industrie dëgg tant que amuñu industrie fii hmm. tant que amuñu kàttanu defar suñuy doom duñu liggéey mukk ci ci ginnaaw tubaab bi la ñuy toog ba faw man nag du nit kuy nekk ci ginnaaw tubaab dama demoon wuti seen xam-xam dooleeg la nga yor dooleeg li ma yor ak doom bi la yàlla may voilà ak li ñu yàlla may ñu ñëw fii liggéey ko ci mission laa nekkoon. bu bu ñu ne kenn ne bitim réew laa toog déedéet musuma quitté Sénégal dama fi daan ñëw tout le temps. mais nag ci sama mission ba may dox. ba motal la may matal. ak xam-xam ba ma war a indi. bu ma ko paree damay ñëw. mën naa laaj benn te tey jii waaw waaw ndax mën nañu xaar ci yow yàlla defal la li nga bëgg. Mhm. ñu dem ba nga xam ni am na avion yu bëri ci monde bi fii lañ leen leen di defaree di leen jaayi tubaab bi. incha allah mais dëkk boobu dëkk bi. lu tax. am na lu bari lu ñu fi war a defar bala ñuy yegg si ci loolu. Mhm. bu fekkoon tey jii. Hmm. loolu loolu tey Ndiaye. Ah, mënoon naa defar sama avion ci dëkk bi dinaa ko defar. mais bala ma pare defarum avion boobu il faut ñu defar dëkk bi d' abord. defar nit ñi. defar lu bari la ñuy defar. defar biir biir yi ba ci jikko xool leen environnement Sénégal est-ce que gis ngeen salte bi fi nekk rek dama leen di wax rek ngir yàlla man mën naa ko batale Kajoor sax moo ci raw suñu dëkk ba mais dëkk bi cinquante ans ngi nii salte bi kenn dafu ci dara dañoo dem ba tàmm jërëjëf man xam nga dañoo dem ba tàmm ma waxaat xam nga dama lay wax nii rek mhm. euh, da nga maa fekk ci sama bërëb ñu invité la mais jox naa la respect. Mhm. total big respect big respect. sincèrement am nga yar. Mhm. am nga teggin. Mhm. pose daal nga xaw nañ laa secouer tuuti nga nga calme ñu yooyu dañu mag mu yaru la Samba mag mu yaru euh, ñu ngi lay ñaanal yàlla yoonu. ci loolu saa ci loolu saa sa wax rafet na kilifa gi sa wax rafet na te it loo xam ne dañ la koy wax mooy fi nga teg sa tànk. ak ñi la entouré. jàppal ne ñu baax lañu. Mhm. parce que communication defar nañu ko. la ñoom la àndal ñëw fii. Mhm. ku ci mel ni Dumbuya. Dumbuya suñu xarit borom Thiès Prestige. ah ku ci mel ni madame Dia mi nga xam ni jëkkëram moom moom intercontinental. négoce bu Thiès donc defe naa ne ñi la ah, ah, wër daal ak suma xarit bële. waaw mhm. ah, euh, ah. Viviane waaw Viviane ah? waaw Viviane defe naa daal sa entourage ah baax na trop ba tax na sa communication ah, ah, waaw ak sama xarit bi sol ensemble waaw dama ci bëgg a wax mention spéciale pour Doumbouya mi parce que dëgg-dëgg man noonu laa gisee sunu sunu démarche dama ne man koo xam ne day laaj di réclamer ci biir ñun bëgguñu ko mu pare ñun dañoo bëgg ñoo xam dañuy pare ne yàlla rek tax moo tax suñu parrainage xaw a dëgg tuuti noonu parce que dañuy tànn sax ñi nga xam ne ñoo ñuy parrain lii ma leen di wax lu leer la Doumbouya moo ñu fi indi fii di ñu jàppale nag kooku dañ koy signaler parce que liggéey bi mu fi def lu am solo. dugal ñu ci milieu tey jii bu dul woon moom du ma fi ñëw. moom suñu xarit moom moo leen xam indi indi ma. xam nga donc loolu c'est important. te tey jii yaakaar naa ne bu ñu taxawalee samp ndënd lu mel nii. nit ñi dinañ ñëw. man am naa ci conviction ak mbër yi fi yëngu yëpp nag di jaay ne ñoo fi ëpp doole ñoo fi nekk déedéet innovation addina day soppeeku. leer na tey jii kenn dootul dafati théâtre comme nañ ko daan dafe soppi ngeen ko. Mhm. ñu ko daan def pare nañ ci. politique timit noonu la mel. bu kenn yaakaar kan moo xamoon ne Facebook doon na fi am. il y a 15 ans ay WhatsApp. imagine ngeen ko ñii fi nekk tamit dañuy jeexalan ah. moomuñu nit ñi nag. moomuñu nit ñi. yaa njaay ngay bëgg a yëg moom ngay nekkaa ngay bëgg a yëg njaay daal ci waxam ji yëpp xam nga koy conclure alaaji ngi fii dama bëgg ngeen dégg ko mhm. Sénégal kenn ëppale wu ma ci am naa ci droit mën naa samp sama ndënd jàppale sama réew jàppale sama askan loolu rek a ma ñor delloo njukkal réew mi te am naa projet boo xam ne yaakaar naa ne moo gën ci projet du ma ko wax kañ parce que ñun dañ koo liggéey. <laughs> jeex na ñun innovation la ñu taxawal. suñu beneen gan ngee ñëw. cax bi ñuy indi ah Alaaji. Oustaz Fall Oustaz Ndaanaan bi. génnee la nag xam nga xam nga ki bàyyi. Oustaz Ndaanaan bi ki bàyyi ay millions et des millions. di ko fayeeku par weer bàyyi ko. mënoon koy fayeeku di ko tokk ak njabootam ak i mbokkam toog jàpp ñaamuram te coow du jub aussi bu la nee dimbali sama askan moo ma tax a jóg c'est parce que c'est xam nga lu ma dégg ci waxam waaw ci waxam dama ciy dégg ne nañu bàyyi di woo chinois yee ñu ñuy defaral dañuy defaral suñu bopp. très bien man noonu laa déggee waxam. Mm-hmm. macha allah boo xoolee Léopold Sédar Senghor. Mm-hmm. chinois yee ko defar. Mm-hmm. te dañoo muuroon ay seng. ba ci mujj bu ñu ibbi ko xamoo luñ fa stade ba waaw waaw waaw lamb fi ñuy bëree nii chinois yee ko defar sengee ko nëbbu man fekke naa loolu di liggéey ko maa ngeeg photo bi maa ngeeg photo seen technologie sennul de ah, ah. Ah, mais ñun nag xam nañ ko parce que ñun dam nañ fa ñun xam nga leen ñoom ñun dugg nañ fa xool nañ ko waaw ñun ñooy defaral suñu bopp léegi ñun de yëndu nañ ko kii yëndu na américain yëndu na chinois yëndu japonais kii yëndu na ñëpp kilifa a kontaan nañu jërëjëf kontaan nañu waxtaan bi ngir ndamum Sénégal loolu moo ñu yëkkati. jërëjëf mais président Macky Sall dina la woo suba. dina la woo loolu na nekk rek dox la ngay dox. waaw mais dina la woo nekk nag dox la ngay dox. na na ku nekk dox la ngay dox. déggoo ko gis naa ko nag mu dugg avion yi. waaw di photo wook avion yi kon nag moo ma fekk si de. ah, ah moo ma fekk si sama domaine. Ah. ah sama domaine nag moo ca dugg. kon jeex na. Ah. kontaan cey sama xarit bi. Oustaz Fall laa ilaaha illallah. Air Force One de feeñ na Sénégal kontaan nañu. jërëjëf jërëjëf kontaan nañu. wallaahi yow da ngaa baax. ñaar Ndiaye Ndiaye jërëjëf kontaan nañu. c'est bon jërëjëf dama dugg pip. ak Oustaz. très bien ah, ah kontaan nañu. ah kontaan nañu kii bi ah Ndiaye